di nuyu mboolem senegale ak fu mu mën a nekk ci gox bu mu mën a nekk di leen yóbbante sama cant te xam ne lottu naa ci ak gis naa ni ngeen ma taxawoo ci fan yi xam naa ne nag awma solo bu toll noonu xëy na dëgg ni mu leen dëgg ñore moo tax mu toll leen noonu ndax bu fekkoon ne du dëggit am ngeen mat gu tol ni lu dul dëgg du ngeen ko accepté waaye nag dëgg moo leen ñor ak fu mën a fare xoolu leen ko ci borom doole wala ko amul doole ma di leen ci sant sant goo xam ne si mun naa am ab tàmbalikaay waaye amul ab yamukaay ngeen jéggal ma rek ma cité ci quelque euh, tuuti rek ñu mel ni suma mbokki commerçant yi ñu leen di woowee ACIS te Galas Xuma nekk ca bopp ba maa ngi koy beral cant gu rëy a ak mboole membre asis di beral sama mbokk yi village ya ca mbàmp na sama dëkku cosaan maa ngi leen di sant bu baax yëg naa seen taxawaay te ñor na ma lool dégg naa ñaan yeeg yépp yàlla ñu yàlla defal jàmm defal senegaal jàmm bu loolu weesoo wax ji sax bëgguma ci woon dellusiwaat ndax bëgguma nag di am jotuk fu ma toll di nekk ci ay tontonteeg ay nangam ndax man kenn xamuma ci yooyu wante nag dama waxoon sama wax ba pare ci ginnaaw si gi ma déggaat yeneeni wax yoo xam ne il faut ma génn corriger ci li ma ci mën a corriger du question sax damay tontonte ndaxte booy tontonte nag da ngay tontonteeg koo tollal dayoo loolu daal bëggoon naa ko cee wax ndaxte am na ci tuuti ay yoo xam ne ah, bëggoon naa cee jubbanti yu Diagne bëggoon naa cee jubbanti yu Diagne ma dimbale ko rek xam naa ne moom ah, da doon jéem rek ndax loo bëgg bëgg waxtaan loo bëgg wax bëgg wax dëgg da jiital dëgg loolu moo neex suñu boroom ndaxte euh, fi may tàmbalee mooy mune ne Mohamed dañ ko jàpp fa Dakar mu ne man moom ñoo àndoon di tappale man ko bu xamul na laajte Mohamed Lo jàpp nañu ko te kenn enquête bu ko kenn mënul ne la Mohamed Lo lii la wax wala laa la wax di ko xamal ne bu fekkee dañ koy informer mu teey ndax moom noonu muy jotee kàddu ni lay jote ay kàddu wante nag kàddu yooyu wéruñu loolu amut ab nar la moom moytu yooyu loolu nag dañ koy bàyyee ak justice Sénégal ndax dafa dugg ci domaine boo xam ne maîtrise wu am na nag leneen tamit lu mu wax mu wax ne Euh, euh, ngóor kooku bi mu ñëwee foofu Mohamed Lo dafa jël xaalis jaar ci buntu ginnaaw ba dem ma ni ko joyanti foofu ne ko ñun suñu magasin benn porte rek la am te ci mbedd mi la nekk amul porte ginnaaw xam naa dafa juum danga waroon a ñëw rek vérifier balaa ngay wax ndax booy wax ak lu toll ni àdduna da ngay mesurer say parole di fexe di wax dëgg ndax moo lay amal njariñ ndax bëgg a wax rek walla ñu lay waxloo wala nangam bu mu teree nag nga gëm sa bopp wax li nga war a wax maa ngi koy joyanti ci loolu beneen bi ci topp wax na ma nag eh, defal na ma nag ay accusation yu garaaw saaga na ma xas na ma waaye loolu du ma ci sori yoon dafa am ci dëkk bi te yoon dafay tere ku fajal boppam li mu ma wax police waxuma ko gendarmerie waxuma ko nee na ma sàcc la ndey sàcc la euh, wax na sax yeneen wax yu gën a garaaw yooyu dinaa ko porter plainte gendarmerie li mu wax ci vidéo bi mu indi ci ay preuve loolu rek laa bëggoon a wax ci mbir moomu di wax ne li ma leen doon leeral kero sax bari na ci lu ma leen waxul ngir doon bañ a guddal doon bañ waaye tey daal li gënoon a ëppoon solo ci daje bi mooy remercier samay bokk wax na ne itam dañu ma euh, supprimer foofu ndax dama crédibilité wut xaw ma noonu koy waxe ci dama crédibilité man xam nga dama desee wóor xam nga man ab doo maa ngi koy yëgal ne nag tey société yi gën a mag ci Sénégal ak importateurs yi gën a mag ci Sénégal maa ngi jëflanteeg ñoom jëflante bu rafet rafet rafet euh, kon nag euh, wax jooju moom mi nga xam ne daal xamuma palaasam xam naa ne moom moo ma xamal loolu xëy na nag bis xëy na dama ko masa leb ci sëqal bopp yooyu muy jaay te fayuma ko euh, wala xaalis yi ko daan fayee ci raxasum bidon mi mu koy daan ne dama cee ma a lebal te fayu ma ko xam naa loolu moo tax euh, mu wax loolu waaye euh, yooyu yëpp amul solo waaw euh, kon nag bu leen neexee ñu jàll ci question yi lépp lu leen lënt d'accord nañ ngeen posé ci ay question génn waaw moom loolu la wax mu ne dama làqatu ci ginnaaw Mohamed Lo Mohamed Lo bi ma déclaré diwlin waxuñ te wur woon sax 1000 bidon camion diwlin la ma déclaré woon camion diwlin la ma déclaré woon ñu waxaale ba jiboo suur bi muy indi diwlin gi daf ma ne 1000 rek laa fi am ma waatal la ne ne keroog bi diw bi wàccee laa soog a xam ban marque diw la mais comme xam naa waxante na maak moom ba pare ci waxi gor mënatuma cee deltu ginnaaw jéemuma lijjanti sax nu ko amee nangam parce que jàpp naa ne rek sañ na ko parce que loolu walaabul na walaabul na ci boutique tey ma yow ma amoon suma boutique fii yow ñu taqaloo benn miir dox suñu diggante benn nit ñëw jënd ci yow bidon diwlin dugg ci sama place jaay ma wala mu jënd ci yow saaku suukar dugg sama place jaay ma ko l'essentiel ka man na naa xam ne mun naa kaa jënd mun naa kaa jaayaan am ci dara loolu du garaawul nit ki mun nga euh, marché bi yëpp dina nga gis produit boo xam ne si ñëpp ñooy bokk fu ñu koy jëlee te léeg-léeg nga am ci rupture xam ne sa morom mii di diwa leen koy jaay ba pare nga dem yow jënd ko ci moom parce que des fois ñaar mun na ko waral mun na nekk urgent nga xam ne ni tey danga ko jeexal tàkk te sa stock egseegul mun na tax nga jënd loolu mun na taxit des fois mu yokkoo euh, fa mu war a jóge te euh, fii yokkoogu fi yooyu dina waral nga xam bokk ak nit société ba pare mel ni ki dangay ngay bokk ak nit société nga xam danga nga fay jënd mu fay jënd te léeg-léeg nga jënd ko ci moom moo tax yooyu ñun duñ ci am problème euh, moo tax man làqtuuma ci Mohamed Lo mu Lo xaw ma ko ku ñuy wax xaadim li moo ma ko boole woon ak moom xaarim mi boobu moo ma doon jaay suur boobu moom ma boole ak moom meloo noonu la fa demee voilà. léegi yow facture yi mhm. mhm. ngay wax. te waaw Mohamed waxoon naa leen keroo ni ma ci jote waxoon naa leen ne bi ma tegee xaalis bi ci taabal ji mu di ko wàññi. bi mu paree ci la bàyyi facture yi newoon naa leen man defaloon na ma ay facture yoo xam ne sax man doyoon na ma sëkk waaw waaye nag euh, heureusement yàlla miy def sutura yaakaar naa ne bu ma yemoon ci facture yooyu moom Mouhamed Lo defaloon rek keroo bi ma demee ci exprès bi mu defoon ne danoo sàcc diwam yàlla mi bari sutura rek moo tax facture yii fa Mouhamed Lo bàyyi ci sama kaw taabal moo ma sofe ne ko noonu suñu ñëwoon ma ne Mohamed loo ma jaay moo ma defal facture bi moo ma defal décharge bi kii moom ne dañoo sàcc diwam ah kon mënoon naa gën a metti en tête facture ban ci Mohamed Lo moo ci nekk commerçant Touba marché Ocass non man awma problème man ak maam xari Mbàkke awma problème ak yande maam xari Mbàkke laa amal problème awma poroblème ak yande waaw parce que loolu dafa xamul rek parce que tey moom bu demee ci dossier yi eh, buy demee ci dossier yi man li ma gis man maam xari Mbàkke moo ma porté woon plainte man gisuma yande dossier yu bëri dama koy jot waaye maam xari Mbàkke laa ci gis am na yu ma leen ci woon léegi gisuma ci yande yande mooy maam xari rek parce que xam nga bëgguma dul sori sax ci yenn détails yi bu amee ko am beneen question nga posé ko. Euh, la. waaw loolu moom démentir naa ko weddi naa si ne kooku kenn inquiété gu ko moom police xamu ci dara gendarmerie xamu ci dara. Euh, dégloo guñu ko kon moom bu fekkee ne loolu la wax kon moom junne la xanaa. waaw loolu loolu rek laa ci tontu loolu ah waaw man na xaw ma ban maanaam xaw ci ay mbiram lu bari li ma xam daal mooy te yëg gi ma yëg ne jàpp nañ ko sax information bi ci ñoom la jóge ñëw ci man ci ñoom ñooñu waa kër googu xibaar bi ñoom ma ko xibaar ba ci ba ci bi ñuy kii nii bi muy programme conférence de presse bi yin ko doon dicté gi yëpp ñëw nañ nettali ma ko liñ ko waxoon mu wax ko niñ ko ko doon wax loo yëpp lañ ko jox ak euh, nañ ma waaw xam nga loolu maa ngi ko bëggoon a def. waaye xam nga démb ak situation bi yenn foofu moo taxoon loolu amul woon jot gi waaw dama ma dugg parce que man euh, aw ma problème ak maa xëri Mbàkke gaa ñu moom moo ma porté plainte waaye dama séqut ak moom loolu man moom Mohamed Lo moo ma jaay mu ñëw porté ma plainte waaw li ma acquis si receleur loolu laa ko bëgg loolu laa ko bëgg a euh, porter plainte moom maam xëri waaw waaw defaguma ko waaw keneen kii fas naa ko yéene waaye moom it defaguma ko dossier bi waaw toujours maag justice ñu ngi ciy wax ba ci tey jii rek wax nañ ci lu yaatu waaye du du du lu ñuy mën a waxaat waaye tey jii rek wax naa ci ak ñoom waaw. encours mi ngi enquête mi ngi en cours waaye nag man kenn dama wërtoon enquête sax naa man li ma yor dafa leer naa ñu commissaire ba jeexal woon na loolu laa ciy wax. commerçant Mar Sokas di rakk ci Moodu Mbay maa ngi leen di nuyu yéen ñu fi nekk yéen ñëpp. non mbir mi de comme maanaam wax ci comme ku bokk ak moom ndey ak baay rek ndax maam daa liggéey bi daal ci laa bëgg a wax waaw te mooy ak jubam ak ak njàmbaaram ak bëgg mbokk wax dëgg yàlla lool laa xam ci moom ma ma ko xamee ba léegi mosuma koo xam ci lenn lu ñàkk fayda wala ak jubadi walla lu doyadi wax dëgg yàlla liggéey laa ko xam jàppale ay mbokkam ku maandu la ku jub ku ragal yàlla loolu laa xam ci moom leneen bu ma déggee keneen wax ko ci moom sax damay jaaxal ndax wax dëgg yàlla man mi yaroo ci moom xam naa ko bu baax depuis ba may nekk xale ba ba léegi kon man lu ma wax ci moom rek xam naa ko may wax dëgg yàlla mosuma xam ci moom daray ñàkk fayda wala ay caaxaan wala jubadi wax dëgg yàlla nit ku jàmbaare la ku nangoo liggéey ku fonk ay mbokkam waaw moom laay liggéeyal palaas bee ma nekk it moo ma fa teg maanaam moom laay jaayal mais wax dëgg yàlla nit ku jàmbaare la daal ku fonk doomu aadama ku yëg doomu aadama loolu ci la mas di dox moom ba muy def affaire këyit di tege ci yoon booba mën naa ne la place bu ndaw la yoroon yëg seegul sax fii mais wax dëgg yàlla lim ñàkk ci këyit xam naa ne boo ko dajale woon lépp som bu bari la ndax lépp rek bëgg lu tegu ci yoon place am moom loolu rek laa fa mas di xam ci magu Modou mbay mais tooguma fi pour magu Modou mbay bu nekkutoon moo Modou Mbaye nekkutoon ci dëgg mun naa ko romb muy dem di dikk du ma ci masangaan mais ba ma ko xamee ba nëga ni dama ko mës sa xam ci ay caaxaan wala ay tappale wala muy dugg ci lu mu dugg te loolu ñi may déglu su dee nee wax naa dëgg xam na su dee waxuma dëgg xam na wax nag moom li nga koy seedeel nit ñi nga seddeel ko yàlla daf ko ëpp solo xawma ci moom benn ñàkk fayda wala benn xeetu jubadi dignité mayu ko ko personnalité mayu ko jomam mayu ko ko ngoram mayu ko am na lu muy jomb am na lu muy rus ginnaaw bu yooyu yëpp jàllee ma ngi sant sama mbokki bopp yi bu baax a baax a baax parce que ñoom ñëpp mën naa ne coono bi ñu sonn ak seede yi ñuy seede ak ñaan yi ñuy ñaan di ñii ay ay ayaatul ayatul yu ñii di di di di euh, sindi di rek maanaam ndax nit bu fekkente ne bii ne maanaam dañu laa xamut ci jubadi bu fekkonte ne bii xam nañ ci moom lenn luy xeetoog ak jubadi du jaral nit ñi sax benn yëkkati sa téléphone di woote parce nit ñi kenn moomu leen nit ñi kenn moomu leen moo tax euh, am na xele bu ma dégg démb muy wax mais li mu wax xaj na moom la conserné ah kon de xaj na dañu soppi moodu ñaar bu dee moodu ma ma xamoon ak li muy wax naan régeleur la ak ay moog sàcc ba xaw ma ñoo bokk ndey ak baay ñun moodu mi ñu xam bokku tëkkub tappalekat ndey ak baay waaye nag euh, ay wax moom comme moom dañ ko yarut ñun dañ ñu yar te wax dafa mën a dem fu sore sore sori waaye li ma xam daal mooy moom ba muy wax mënoon na wax lu rafet ndax ginnaaw yow ki lay wax loo fa ngay fa waxee liggéeyi woo fa sax kaay waxal ñu am ñu la gën a mën a wax am ñu la gën a yayoo wax ja am ñoo xam ne ci en bu dee ne entreprise la sax bu dee mat na entreprise xanaa dana am ñu ko jiite kon doo for mi rek nit ne ko kaay waxal ma koo xam ne ay sëqal karaw lay jaay ñu xam ko ci marché bi tuubaa gi yaatuwut Touba gi yaatuwut doon na fa raxas ay jamono ay bidon ñu di ko fay par tournée ñu dàq ko fii ñun ñëpp xamante gis nga ñun ñii bu ñu nekkoon ciy tappale nga xam ne commerçant yi Tuubaa yi ñoo bari fu la barke alxuraanul duñ la lijjanti sax amuñ jotu ku jubadi Tuubaa xamuñu lu mooy liggéey ak jaamu yàlla bu ñu bu fekkonte ne bii leer na nit ñi ne ci tappale la ñu ne amal li wuñ ko daraja parce que daraja joo fiy jaay am na ñu la ko ëppal yaakaar naa ne ñépp boo dégloo da nga xam ne nit ñi xàmmee nañ luy dëgg ak lu dul dëgg kuy wax di foraatu nag ak koo xamante ne bii ne day wax lu mu maîtriser du benn waaw bu loolu lépp jàllee maa ngi sant ñépp di jéggulu ñëpp di gërëm nag sénégalais yëpp waaw di wax ne man la Mame Mor Mbaye opérateur économique Touba bu Ndaw mbokk ci Mour Mbaye di rakkam di xaritam di jege ñaaleem ku ko jege di collaborateur ci liggéey bi nekk koo xamante ne bii lépp lu nekk ci moom ci biir ak biti ñu ngi koy seq xam nañ ko bu baax a baax te mbir mii nag li tax ma di ci wax dama cee nekk ci biir ndax damaa xam tàmbali ba fa mu tàmbalee dama dama caa bokk fekke ko ak ba fi mu toll nii kon mbir man ku ci taxaw man cee wax laa doon te lépp lu ma ciy wax it li am rek laa ciy wax du ma ci wax lu dëgg xalaatuma ko àdduna jaralu ma ko ñi ma xam te di ma diglu it xam nañ man maay kan xam nañ li ma àdduna jaral ak li ma jaralul xam nañ ne àdduna man jarul moom may waxal nit lu lu amul mbir mi ba mu amee ba léegi kenn ku nekk yaa ngi ciy jug di sonn ñenn ñi di ci wax luñ xam ñi seet di wax luñ xamut li tax nag ñu génn di wax mooy comme àdduna bi jot nañ ci ñu bëgg a leeral adduna bi xam leen ne leen mbir mi kat nii la demee te ñu xam ki nga xamante ne bii moom la affaire bi daal ci kawam xëy na adduna bi bari na ñu ko xam lool waaye am na ñu ko umpale ñu ko umpale nag lañ bëgg xamal moom mooy kan. nit la koo xamante ne bii bam juddoo ci ndeyam ak baayam ba léegi nitu kaw la ci àll bu la juddoo yaroo fa baayam di ay néew judoole ak yaayam mu jóge fa ñëw ci dëkku Sëñ tubaab yi depuis fanweeri at mu nekk fi di daan dooleem di góorgóorlu di jugu ko daanu. ñi xam commerçant yu mag dëkk bi ñu ci bari xam nañ ko muy ndaw ndaw lu jàmbaare woon mag ñëpp bëgg a jaxasoo moom bëgg liggéey ak moom ba tax fii mu agsi tey mag ñooñu ñoo ko teete ba mu agsi fi ak jàmbaaram ak jomam ak fullaam ak faydaam moo tax mu agsi fii mu kon bu ñu demee ba mbir yi am euh, kenn ku nekk di ko interpréter ak kim ko seqal nekk koo xamante ne bi xëy na ku nit ku am dayoo ci dëkk bi ku am dayoo ci ci ci ci wàllu politique dëkk bi moo tax mbir mi mu demee ni mu demee ak moo tax mu teg ni ñu tege ndax mbir amee man ci témoins yi ko fekkee ci laa bokk man ñi ko fekkee ci laa bokk ndax man moom moo ma woo ne dafa am ku koy jaay diw dafa agsi te amul xaalis te wax na ko ba mu agsi ba pare mu woo ma ne ma damaa soxla temps ci xaalis ma ne ko yor naa temps de mais nangam laa a jox mu ne ma kon baax na indil ma ko ma ñëw ci biir ci place bi ko xaalis kii baa ngi nii de te ma ko mu ne ma dama jël retiré ko si sec bi man maa dem retiré ko si sec bi ñëw fekk ko ci bureau toog man maa ngi retiré 23 millions 990 mille laa retiré si sama compte 23 millions 990 mille moom laa retiré sama compte ñëw indi ko ci ñëw indi ko jox ko ci la ma koy jox la ca des mu complété ko bi muy fay waaj it maa ngi toog bi mu koy fay man maa ngi toog ci biir bureau bi bi mu koy fay Mouhamed Lo di ko jox xaalis bi maa ngi toog ci biir bureau bi man waa ji bi muy génn ci bunt mbangase benn bunt la am amul ñaari bunt amul ñaari bunt waaw bi muy génn amul ñaari bunt benn bunt la waaw ne ko ne ko Moodu Mbay mi ngi wàññi sa xaalis bi su paree daan daan la woo jox la ko moom mu génne loolu la loolu la wax loolu la wax waaj ne ko Moodu Mbay nga wàññi xaalis bi si biir ngóor si moo ñëw ngóor si bi ñu toogee tuuti ba waa ji dem lu xaw a yàgg moo ñëw daan ne ana ana ana Mohamed ana ngóor si ñu ne ko ngóor si dem na de mu ne moo waxoon ne yaa ngi wàññi xaalis bi di ma woo di ma jox Moodu ne ko xaalis bi jox naa ko de mu daal di wàññeeku waat daal di demaat bi mu demee xam naa ci la woote matul matul lu mat 30 minutes ay ndaw yi maam xëri ñëw ñaari jigéen ak nangam comme Moodu su fekkoon ne ak jubadi la biñ ñëwee biñ ko laajee ana kii nañu xamu ko gisu ko ñu ne ko da ko xam mu ne xamu ko ñu ne ko kër moo ko leen ki ma boole moom di mi ngi fi mën naa leen ko wol xaadim li ñu woo xaadim li ci changé xaadim li ñëw kii boole ak Moodu Moodu Moodu Mohamed Lo kon kooku kuy sàcc wala ngay tappale doo def loolu wane na preuve ne kii moo boole ak moom kooku ñëw taxaw assumé assumé ne maa ko boole ak moom matul matul 30 minutes police ñëwaat police ñëw ñu fekk ñu foofu ci bureau bi ñun ñëpp kenn bu échappé mu jël ñu yóbbu ñu yóbbu ñu commissariat biñ toogee ci bureau bi di wax li ñu wax lépp ñun ñëpp fekk nañ biñ laajee maam xarit laaj keneen ñoom ñëpp ñu wax li ñuy wax muur génn kayit yi kii bi ne dem leen ngeen fële ngeen def seen rapport ñu wax waaye ki nga xamante ni nag dégg naa mu génn wax ne eh, moom mooy porte parole Yandé man dama koo gisul ci dossier bi man moo tax man bi mu ne mooy porte parole Yandé xaw ma ko fa it bi problème bi amee gisuma ko ci ñëw ñi ñëwoon gisuma ko ca police ba enquête wuñ ko ba pare moom gendarmerie sax laa dégg muy tudd te enquête bi police moo ko doon def affaire bi demuñu gendarmerie police janatu moo ko doon def moom gisuma ko ci enquête ba gisuma ko euh, ca mbir yi bi mu amee maa ngi koy doo gis démb bi muy wax kon kooku xam ne dañ koo monté dañ ko fay toog di ko wax loo ci xam nag mooy ndeyu mbili gi engagé affaire bi te teg na kii ren da taxaw jàkkaarloog ñu ñu wax moom da taxaw ñun duñu ay ay nit ñoo xam ne dañuy nëbbut wala ñuy làqatu ñun ay nit la ñoo xam ci dëkk la ñu nekk fi lañ yaroo fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee fi lañ liggéey fi lañ defe lépp lu ñuy def nag ci dëgg lañ koy teg defu ñu ci leneen loolu nag lañ bëgg a xamal askan ak mbokk yi di sant mbokk yëpp nag di gërëm kilifa yi diine yi te xamal ne euh, kilifa yi dëkk bi it dina ne ñun ñii kat ay ndaw lañ yoo xam ci dëkk bi nekk doon fi liggéey te kenn xamuñu ci jubadi muy kilifa yi ñu xamante yëpp kilifa yu bari nag jaxasoo nañoo ak ñoom ci biir ak ci biti bañ xam ni ñooy ñan kenn mosu ñoo xam ci tappale kenn mosu ñoo xam ci nag sudul noonu kon nag ñi ngi leen yëgal mbir mi kilifa yi nga xam ñu ngi koy dégg te xamuñu ni mu demee ñu xam ne nii la mbir mi deme ñu leen di jaajëfal bu baax jërë ngeen jëf